société bii dama bëgg nga jàppe ko comme sa société vraiment léegi yaa ngi nii. Veuillez décrypter votre et l'objet de votre D'accord. kaay ma yónni la sa nijaay sa papa dafa feebar ñu bindal ko ordonnance te quarante mille la damaa bëgg mu jàppale ma ci. Maman, viens Maman, tu connais ma copine Sylvana Ok, je vais fête anniversaire demain. Et j'ai besoin d'une robe de 50 000 à cadeau 25 000. Ça te fait man de Yacine dama amoon problème. loolu dafa yomb torop boo bëggee xaalis danga koy ñafe nga def nii nga am ni say nawle. de toute façon grand tu as Et puis tu es l'aîné de la famille. Écoutez les étoiles, tu t'es calme, Attendu les crossettes, une tendance privée. C'est demain matin. Anne Souleymane. dañuy dem restaurer. resto.